Ousmane Ndiaye. Ah, jërëjëf mbokki internet wolof pip euh, tv ñu ñëwaat ak yéen nag ci euh, tiis ak naqar euh, bi nga xamante ne rek daal dinay wàccaat ci mbokku journaliste yi lée ah, mu mel ne kon chaîne bi di 2S TV moom nag dafa rekk daal di am dëcc ah, mu mel na population bu kaw Kaolack ñoom nag surtout journaliste yi am nañu nag li nga xamante ne rek moo di mbetteel ci génn àdduna ki nga xamante ne Ah, moom moo di euh, Birane Niass ma nga xamante ne rek daal di woonay euh, dudd boromam ah, doonoon nag correspondant site bi di Thiey euh, Dakar moom nag moo daal di woon rek dëdd fan yële ñu génn waaye nag ñu nemmeeku ni aljuma bi ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru octobre atum 2021 ah, ki nga xamante ne rek moom moo di journaliste bu mag bu ñuy wax Chérif Thiam nekkoon fi correspondant 2STV foofule ca diwaan bu Kaolack moom nag mu ngi rek daal di woon juddu dëkk boobu euh, nga xamante ne rek moom moo di euh, Daaru Rahmati euh, moom nag moo daal di rek wuyu ji boroom moom nag foofu ca centre hospitalier El Hadj Ibrahima Niass li ko rek daal di faat nag di feebar bu gàtt bu nga xamante ne rek tëraloon na ko foofu ca l'hôpital ba. mu mel na kon waa Wolof Pip TV ak ñi nga xamante ne ñoo koy safoo ñëpp ñu ngi rek daal di jaalee Ah, moom moom di euh, Chérif euh, Thiam di ko jaale mbokkam yëpp waaye tamit di ko ñaanal euh, yàlla dina ko xare njégal